ci diggante maître Babou ak avocat bi mu ko seqal ak procureur bi mu ko seqal ngeen jéggal ma ci kàdd yi mu wax ni da ko yëkkati muy kàddu yi ñagas jëmale ko sëriñ bi loolu moo tax sëriñ Fallou Mbacké bëgg cee def ab leeral tuuti sëriñ bi kon yow lañuy ñuy déglu. asalaamaaleykum wa bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal sunu njëbbal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ko jaarale ci suñu bunt ci moom muy borom daaru muxti Ceerno Ibrahima Faati noonu it la ñuy berale ak cant ak ziar akum nuyoo ki fi nekk Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasul di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Xaadim Rasuul noonu it lañ koy ñaanalee mbokkam ma mi fi nekkal sa borom daaru almuxti muy sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñaŋ di leen ñaanal naal yi ñu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba ñu defe ko ni ñu ko bëggee te suñ boroom guddal seenu fan te yàggal leen fi te yàggunoo digal te yàlla bu ñuy gis ci lu ñuy tere barke Cheikh Ahmadou Bamba ñun nag ñu am ay kàddu yoo xam ni moom lañ bëggoon a leeral képp kuy ab taalibe te yaakaar sëriñ Touba ndax murid yi mel nañ ci sëñ Touba noo xam ne lu nu dégg mu jëm ci sëñ bi duñ ci ànd ak seen sago ndax seen xol bi boo ko xaree sëriñ Touba rek nga ciy fekk coow loolu it bi nga xamante ni dégg naa ko ma am ci ñoo xam ni fekke nañ jotaay ba ca audience ba ñu wax ma ma dégg ma dégg kàddu maître Babou wëlbatikuwaat dégg kàddu yi Seydou Diawo muy procureur Diawo fii ci Diourbel na mu demee nag Seydou Diawo nettali na ma ni ma coowal suuf la am ku sant Bousso koo xamante si nii moo am ku mu njëkkoon a jox suuf sax kooku yëkkati ñaar fukki junni jox ko ba mu yàgg mu jëlaat suuf sa dar koy joxaat keneen kooku yëkkati juróom fukki ni jox ko ko muy euh, deux cent cinquante mille léegi nag procureur jaaw ni ko ndax dalaa may suuf si waa ji ni daf maa may suuf si mu ne ko kon léegi deux cent cinquante mille yi nga xam ni moom nga ko jox lu tax nga jox ko ko wala danga ko koo jox addiya nee na bi mu ko waxee ne ko wala danga koo jox ki sant bu sa addiya maître Babou yuuxu ko ni ko lu tax ngay wax loolu ndax danga bëgg a dugg ci yoonu murit li nga wax ci yoonu murit nanga mag naa lu ne wax ko ba Seydou Diaw nee na maître Babou da koo saaga ci biir audience bi ndey waaye nee na comme kilifaam la te dañ ko jox cër mënu ko yóbbu ci yoon mënu koo def dara moom it Seydou Diaw daal di fay yu moom tamit nee na lii moo indi coow li kon ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci sëñ Tuuba tey su ma doon yëkkati sama alal di ko jox nit may ko ko xolom sedd xëy na mu yëkkati juróom fukki jox ma ko bi ma ko jox addiya la ma ko jox te ñun dañuy jël addiya waaye moom waxewu ko lenn lu dañu ko xanaa juróom fukki junni yi nga jox ki sant Bousso xanaa addiya nga ko ko jox léegi nag loolu moo tax maître Babou xam ne maanaam euh, audience bi ñàkk na ko moo tax nag mu ne xaaral ma attaqué procureur bi ngir bëgg déstabiliser ko jaxase ko ak yoonu murid waaye ñun ñi dëkk Jurbel xam Seydou Diawo xam ni mu bëggee Sëñ Tuuba ak ni mu ko doyloo ak ni mu ko kennale waatal na ma ci yàlla ni ma xajub sëriñ Tuuba sax du ma ko wax naka su dul noonu waxuma la may yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci sëñ Tuubaa moom procureur Diaw loolu la ma wax léegi coupé nañ téléphone léegi waaye képp ku yu bokk ci yoon wi du ma tudd seeni tur ay kilifa lañ ci yoon wi nekk ay mag ci yoon wi ñoom ñëpp woo nañ procureur Diaw waxtaana mu expliquer leen ni wax ji deme waaye nag li Seydou Diaw wax garaawul xanaa dangaa jox sëñ bi àddiya loolu noonu nag moom la pour maître Babou génn exploité ko dem ci fu nekk lu ne mu wax ko ma bëgg yee nag murid yi nañu bàyyi képp ku jub ngir meri nit daani waxal na sëñ Tuubaa nangam su ko defee bëgg yoonu murid gépp dal ci kaw kooku nañ ci demee xel te buñ ci demee xol sëñ bi jàngal nañu yar ak teggin sëriñ bii fi nekk di sëñ Muntaxa it boo leen gisee situation yi nga xam ne moom lay rek réglé ci ci ci senegal aw ay taxu koo jóg kon nga la yow boo bokkee ci yoon wi nit ki bokk ci yoon wi bul ko jaxasee ak yoon wi di ngër bëgg koo dóor ci kaw yoon wi man nag maa ngi sant bu baax ndax procureur Diao ñun ñi nekk ci dëkk bi sant Mbàkke bu fekkoon lépp loo xamante si ni maanaam luñ ko luñ ko wax ni ko dañoo bëgg lii ñun ñi sant Mbàkke soo fekkoon génn kiñaane sëñ tubaab mi ngi ci xolam ñun ñi nekk ci biir Jurbel gii nii sant Mbàkke xanaa buñ ko diggalee kon du ko def wala fu ñu duggee bureau mu toroxal ñu wala buñ ko nee dañoo bëgg nangam mu toroxal ñu waaye saa suñu ñëwee dañ naan yéen kat ngeen sant seen maam waral lépp kon yéen loo leen bëgg waruñu leen fii te dañ leen a war a defal li ngeen bëgg ngeen dem seen yoon ne mën mii preuve laa ji ndax dem naa bureau ndax soxla fa loo xamante si nii mënta ñàkk mais daf ma koo faj fajal ca saasa te bi ma ñëwee bi ma ko nuyoo daf maa su jootal ki su jootal ngir sëñ Touba xanaa nag du wax naka su dul noonu te it nag bu fekkoon ne wax na naka su dul noonu xanaa du ñëw ba ci public foo xamee taalibe sëñ Touba nga fa te ci biir euh, tribunal bi waa kër sëñ Touba nga fa nga ne dangay wax sëñ Touba devant tout le monde loolu mënta nekk kon maître Babou na seet li muy def magum jëmm la te kii gone gu ndaw la kon moo ko mag foofu bu mu ko jaxaseeg àddina te bu ko yàqal ab lii rek lañ bëggoon a leeral sama kilifa yi nekk jurbal yépp ni ma nag naa génn wax ak yoonu murit wax ak taalibe ñu dal te ànd ak tey te xam ne ni ko maître bu waxee ak na ko maître Diaw waxee bokkut kon nag maa ngi sant yàlla bu baax di yeesalaat suñu njëbbal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax lii nu wax nii kat ngir bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa rek a tax nu wax ko ndax buñ ko waxut di ay naafeq ndax dund nañ ko ak maître Diaw